إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد عباد الله mbokk jullit yi ñi ngi sant suñu boroom ñi ngi koy jéggalu di ko dimbi ni ko di seede ne moom dong nga yeyoo ñu koy jaamu di seede ne yonent yàlla muhammad jaamam la bum yónni woon ci ñun yal na yàlla julli ci moom ak njabootam ak ña koy topp ba ila yawmi diin bokk jullit suñu xutbab tey bi mi ngi jëm ci fàttali la nga xam ne mooy wareef ak ngëneel yi nekk ci jéggalu suñu borom jalla waala jéggalu yàlla suñu borom moo ñu ko dégal ci aaya yu bari ci ab téeréem moom ci boppam mu tudde boppam ne mooy alxafaar ka nga xam ni ak njéggalam amul fu mu yem mooy attawaab ki sax di nangu tuubu ay jaamam waaye it tagg daa di dig jaamam ya nga xam ne dañ koy jéggalu loolu mbokk dañuy jàngal ana lan mooy importance am moo tax ñi ko gënoon a xam ci ay jaamam ca mooy yonent yi mu tànnoon seen màndarga mooy dañu saxoon di jéggalu yàlla ña ca jiitu mooy suñu baay ya mooy aadama alayhi salaam ak soxnam sa Hawa gis nañu ne ba ñuy leen suñu borom yàlla wàccee ci kaw suuf bokk na loo xam ne lu ñu jëkk a wax ci loo xam ne yàlla moo leen ko xamal ci ngëneelam ey yàlla ñun day tooñ nañu suñu bopp soo ñu jéggalul ca yërëm ñu daañ bokk ci ñi perte mbokk ñooñu ñooy suñuy wayjur looloo tax ba seen doom yépp ay def kotu bàkkaar lañu bépp doomu aadama def kotu bàkkaar la loolu moo tax ba ku ca yàlla jéggalul yërëm la bokk nga ca ña perte moo tax ba yeneen yi ñëw ca gannaaw ba ka ca jiitu woon mooy yonent yàlla nuux junni at woote na ko ci yoonu yàlla coono bu nekk daj na ko ngir yàlla waaye teewul ba mu defee njuumte ba mu def ca laaj yàlla ci mbiru doomam ba suñu borom jajj ko ca ak jajj dafa na ay yàlla tooñ naa sama bopp de soo ma jéggalul yërëm ma ma bokk ci ñi perte gannaaw junni ati jaami yàlla junni ati jihaad soo ma jéggalul yërëm ma ma bokk ci ñi perte noonu la ñuy fekk ca ibrahim alayhi salaam muy ñaan jéggal di ko ñaanal julit ñi heure bu la jeg yàlla alaxira loolu lañu gis ci Muusa gis ko ci Daawuda gis ko ci Suleymaan bal ci mboole mi yonenti yàlla mbokk julit njéggal importance bi mu am tax na ba malaaka yi borom bi nga xam ne ñoom ndey duñu def bakkaar waaye xariti julit ñi lañu na doon ñooñu ay jinne lañu wala ay nit suñu borom nee na malaaka ya yenu arsh ak la nga xam ne moo ko wër daanaka muy mboole mi malaaka dañuy sax di sabbal seen cantug boroom waaye nag di ñaan yàlla jéggal julit ñi nga xam ne dañoo tuub di dellu ci yàlla loolee mbokk da ngay gis malaaka yooyu ñi ngi sax di jéggalu yàlla ngeen ña nga xam ne ñooy julit ñi bu ñu ñëwee ci suñu yonent alayhi salaatu wasalaam suñu borom dana ko yow mi yàlla yónni wastaghfir li zanbika walil muminina wal muminat deel ñaan yàlla jéggal la ca deel ñaan yàlla jéggal julit ñi la gëm muy góor ak jigéen yonent bi ci loolu la saxoon ñu war koo roy ci loolu baril di jéggalu yàlla baril di jéggalul suñuy mbokk julit ca xam ne heure boo waxee yàlla jéggal ma maag julit ñi mboolem julit bu mas a jaar ci kaw suuf di nit wala jinne ba ilaa yawmi diin mboolem lim boobu yépp yàlla dana la ko bindal muy ay tuyaaba loolu moo tax ba ku nekk war caa bàyyi xel suñu borom wax xeet bi ne ay yéen xeet bi jubleen jëm ci seen borom ca sax ci di ko jéggalu fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu yàlla waxul sax yéen def ko te bakkaar yi waaye yéen ñu jub tege ci yoon bi boole leen ci ak di jéggalu ci seen borom mbokk suñu borom jalla wa ala nee ne ay yéen doomu aadama yi yéen a ngi sax ci bakkaar guddeeg bëccëg waaye nag man may jéggal ay bakkaar dee leen sax di ma jéggalu ma leen di jéggal ca képp kenn ci yéen ko def lu bon gannaaw ba mu jéggalu yàlla yàlla mu ne danaa ko jéggal ay yéen doomu aadama fii ak yéen a ngi may yaakaar di sax ji di ma jéggalu seeni bakkaar bu yeggoon ba kaw asamaan du tee ma jéggal leen ay yéen samay jaam yi jéggi dayoo ci seen bopp lu ne def ngeen ko asrafu ala anfusihim waaye bu mu tax mukk nag ngeen dagg seen yaakaar ci yàlla yàlla mooy jéggale bàkkaar yépp na doon rey nit laam nan sangara laam jaaloo laam riba laam lu mu mën a doon heure boo ko tuubee suñu borom yàlla mën a dana la jéggal mbokk tuub mi ngi noonu borom bi yàlla def na ko muy teggi mbugal ci jaam bi di teggi mbugal ci xeet bi suñu borom yàlla mu ne wa ma kaana allahu muazibahum wa hum yastaxfiruun fii ak ñi nga jéggalu yàlla du leen mbugal looloo tax ba lu bari ci boromi xam-xam heure buñ masaan nekk ci oto di tukki wala ci avion seen làmmiñ daawul teqalikoo ak astaxfirullah ngiree la borom bi wax ñay jéggalu yàlla yàlla du leen mbugal te mbokk bokk na ci lu mën a indi mbugal la nga xam ne mooy accident yooyu rawatina la nga xam ne mooy dégg mbetteel mbokk la nga xamee ne nii mooy mooy jéggalu yàlla moo gën a gaaw ci ubbil jullit bi bunti wërsëgam gën a gaaw ci teggil ko ay tees ak njaqareem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la wax nee na amul kenn kuy lënkoo sax di jéggalu yàlla lu dul xat-xat ya nga nekk yàlla génn la ca lu dul yàlla indi la wërsëg foo ko foogewul woon te loolu alxuraan rek lay firi yonent yàlla nuux alayhi salaam bokk na lu mu waxoon xeetam ay yéen saw xeet jéggalu leen seen boroom seen boroom mboole mi bakkaar da koy bale innahu kaana gafaara su ngeen ko defee day dana yónni asamaan mu tawal leen taw yu barkeel ca mbokk xam leen na base développement àdduna bam dar képp mi ngi aju ci taw yu barkeel bu toogoon lu jege woon fukki at ak nangam tawul rek dootoo dégg richesse Amérique wala France wala leneen kon jéggalu leen yàlla mu yónni asamaan mu tawal leen taw yu barkeel jéggalu leen yàlla mu yokk leen alal jéggalu leen yàlla mu yokk leen ay doom yu barkeel jéggalu leen yàlla mu génn leen ay dex ak i déeg mbokk lii mooy la yonent yàlla nuux waxoon naka noonu it amul benn jàmm boo xam ne dana ko def lu dul yàlla ubbil ko loolu gannaaw ba doomam ju Huud waxoon na xeetam ay yéen saw xeet jéggalu leen yàlla day su ngeen ko defee yursilu samaa aleykum idraara wa yazidukum quwatan ila quwatikum su ngeen jéggaloo yàlla mu yónni asamaan mu tawal leen taw yu barkeel dana leen dolli la nga xamee ne nii mooy kattan ca la nga xam ne nii mooy kattan ga ngeen yoroon looloo tax ba heure boo bëggee sàmm sa alal sàmm sa xam-xam sàmm sa wér-gi-yaram nga la way saxal di jéggalu yàlla di tuub di dellu ci moom ay yéen ba ko julit xamal ne jéggalu yàlla day yoonal nañ ko fu ne yoonal nañ ko waxtu wu nekk waaye mu am ci place yoo xam ne ca lañ ko gën a yoonale la jiitu ci loolu mooy heure boo defee jaamu yàlla ba pare yonenti yàlla ba sallallahu alayhi wa sallam heure bu daan julli bokk na la muy mujj a wax ca taayaam ba allahuma axfir li ma qaddamtu wa ma axartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta aalamu bihi minni anta almuqaddimu wa anta almuaxiru la ilaha illa ant yonent bi alayhi salaam ma santaay ba pare bokk na lu mu daan ñaan yàlla yàlla yàlla nag ma jéggal la nga xam ne maa ngi koy def ci bakkaar la nëbbu la feeñ la ma jéggi dayoo la ma jiital ak la ma ah defagul yàlla yow yaay xam la nga xamee ne nii ku la neex nga jiital ku la neex nga desal gannaaw almuhim jéggalu yàlla la daan jeexale ak julleem su ma saan sëlmal balaa wax laa ilaha illallah balaa wax subhanallah la muy jëkk a wax sallallahu alayhi wa sallam mooy astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah loolu la daan jëkk a wax mbokk jéggalu yàlla ci gannaaw jaamu yàlla ya loolu la yàlla taggee ñu nga xam ne xaaju guddi dañuy bàyyi seeni lal taxaw ci kanamu borom bi di di di di di tari téere bi yàlla ba di rukoo ko sujuud borom bi mu ne kaanu qalilan min al-layli maa yahja'uun wa bil ashaari hum yastaghfiruun ñoom day lu néew ci guddi ga lañ daan nelaw waaye bu njël jotee dañuy toog di jéggulu seen borom borom bi tagg leen ci beneen place wal mustaghfirina bil ashaar bokk na ñay yeeyoo àjjana mooy ña nga xamee ne nii dañuy jéggulu heure boo xamee ne nii ah naafilu nañ ba njël jot mbokk xatta ñuy génne zakat suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne wa aqimu lsalaa wa aatu zaka wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah huwa xayran wa azama ajra wastaxfiru llah inna allaha gafuru rahim ey yéen jullit ñi dee leen taxawal julli alal ji ngeen yoor génne leen zakaatam te xam ne lu ngeen jiital yéen ngi koy fekk ci yàlla gannaaw ba ngeen jéggalu seen boroom ca noonu it waajee génn zakaat gannaaw ba mu génnee loolu nga xam ne day laabal alalam war na caa boole jéggalu yàlla jalla wa ala su ko defee yàlla dana ko jéggal ay bakkaaram ca laabal la nga xam ne nii moom mooy alalam mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nii la taxoo woon jàngal julit ñi ñu bari lool di jéggalu yàlla ba daana wax ne kenn ci yéen su toogee ci place di fa waxtaan bay jóg ngal la way na wax subhanaka allahuma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilayk wa fi riwaaya subhanaka allahuma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk ey yàlla maa ngi tudd sag sell ànd ak di la sant di seede na yow dong yaa yeyoo ñu koy jaamu yàlla nag ma jéggal maa ngi lay jéggalu di tuub jëm ci yow ngal la waay loolu tàmm leen ko seen bopp góor ak jigéen ñaan gi soo ko mënewul nii heure ba waxtaanee bay jóg waxal subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah astaghfirullah waxal ñeenti kàddu yooyu loolu la ñaan gi di ëmb subhanaka allahuma wa bihamdik ashhadu an laa ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk mbokk mi ngi noonu bal bu ñu xoolee ki nga xamee ne nii mooy abdullah ibnu omar radiallahu anhu nee na ñun day daanañ toog ak yonenti yàlla ba sallallahu alayhi wa sallam ci benn jataay waaye boo ko jegee man ngaa wàññi bala ñu faa jóge dana wax téeméeri yoon rabbi ixfir lii wa tub alayya innaka anta tawaabu rahim ay yàlla yal na nga ma jéggal nangul ma saak tuub yow yaay ki sax di nangu tuub yaay yërëmaate loolee ibnu omar nee na daa nga ko dégg ci yonent bi lu jóge téeméeri yoon mu koy wax ci benn jataay rabbi ixfir lii wa tub alayya innaka anta tawaabu rahim mbokk yonent yàlla boobee gis nañu ne suñu borom dig sant na ko ci jeexitalu dundam ne ko kat iza jaa nasrullahi walfatx wa raayta annaas yadxuluuna fi diini la afwaaja fa sabbix bihamdi rabbika wastaxfiruhu innahu kaana tawaaba ay yonent yàlla bi su la yàlla mayee ndimbalam nga gis nit ñi di dugg ci diine yàlla ji mbooloo mbooloo jéggalul say bakkaar mi ngi noonu moom yàlla mooy ki sax nangu tuub mbokk gannaaw aaya yooyu wàcc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saxoon na di jéggulu yàlla lu baree bari ci ay rukóom ak sujuutam subhanaka allahuma rabbana wa bihamdik allahuma xfir li maa ngi tudd sax sell yow yàlla suñu boroom booleeg di la sant yàlla yàlla nag ma jéggal loolee lu tax mooy fin dundam la ñaari at la teg gannaaw fatu makka daal di wuy ji boroomam loolit mbokk jéggulu yàlla ku ne war na koo saxo waaye rawatina yéen mag ñi nga xam ne wolof nee na ku dee mag dee ku deewul mag dee heure boo demee ba jàpp ne sa dund gii kat la ca ëppoon moom jàll na aw desit moo ci des ngal la way bari lool astaghfirullah di sax ca la nga xam ne mooy sa làmmiñ mbokk da ngay gis ne lii di astaghfirullah boobu it daa am ay charte yoo xamee ne nii dañ ko war a bàyyi xel am na astaghfirullah yoo xam ne danga koo war a waxaat astaghfirullah te mooy astaghfirullah boo xam ne ci làmmiñ rek la yem teewulaa bàyyi bakkaar teewulaa dabantal say wareef mbokk astaghfirullah boobu danga ko war a jéggalu kon tuub jëm ci yàlla ci astaghfirullah la war a jiitu mooy xol baa ca war a jiitu mooy nga yëg ne yàlla day yaay ka nga xamee ne nii yaay sama boroom ku gàttan lu laa ci say mbir maa ngi dogu ci di la jéggalu gannaaw ba nag làmmiñ ba feeñal ko ci astaghfirullah gannaaw ba jëf ya dëggal ko mooy bu doon wareef yoo bàyyi la nga daal di koy dabantal def ko bu doon bàkkaar boo nekk la nga daal di koy bàyyi ñett yi mooy daje sa astaghfirullah dooga normal e yéen mbokk julit xam leen ne astaghfirullah yooyu nañ koy waxe bëri na la ca gën a gàtt mooy astaghfirullah maa ngi jéggalu yàlla mi ngi noonu astaghfirullah maa ngi jéggalu yàlla bokk na ca rabbi xfir lii ay yàlla sama borom jéggal ma te rawatina bu dee da ngaa sujuut ba toog ngal la waay xamal ni la gën lay wax foofu mooy rabbi xfir lii rabbi xfir lii ay yàlla sama borom jéggal ma ay yàlla sama borom jéggal ma naka noonu nañ ko waxe sànq rabbi firli wa tub alayya innaka anta tawwabu rahim yonent bi alayhi salaam daana wax ni waa ji nga xam ne daa wax astaghfirullah allazi laa ilaha illa huwa alhayu huwa alhayu alqayum wa atubu ilayhi nee na loolu day ku ko wax bàkkaar boo mënoon a def boo ko tuubee yàlla bal la même bu doon da ngaa daw bi su xare te loolu ci bàkkaar yi alaga la ca la bokk astaghfirullah allazi laa ilaha illa huwa alxayu alqayum wa atubu ilayhi doonte na mbokk jéggalu yooyu yépp nag ba nga xamee ne ni mooy seen sang gën caa matale mbokk loolu mooy la yonente bi alayhi salaam waxoon nee na na gën nañuy jéggaloo yàlla mooy allahuma anta rabbi laa ilaha illa anta ey yàlla yow de yaay sama boroom kenn yooyowul ñu koy jaamu ko dul yow xalaqtani wa ana abduk yàlla yaa ma bind ca man sab jaam laa wa ana ala ahdika wa waadika mastataatu maa ngi nekk ci li nga xam ne mooy sab dig ak la nga xam ne mooy sa kóllëre sama kémtalal kattan auzu bika min charri ma sanaatu ay yàlla maa ngi làqu ci yow ngir mucc ay li nga xam ne fàggu naa ko abuu laka bi nicmatika alayya ay yàlla maa ngi nangu di saxal xéewal yi nga def ci man wa abuu bi zanbi waaye it maa ngi saxal na man mii de def naa bakkaar ay yàlla faxfir lii yàlla nag ma jéggal fa innahu laa yaxfiru zunuba ila ant yàlla kenn du jéggalee bakkaar ku dul yow yonente bi alayhi salaam nee na koo xam ne da nga koo xëy wax ko dee balaa guddee jot àddina mooy sa wàccuwaay ku ko wax guddi dee balaa subaa jot àddina mooy sa wàccuwaay hadis boobu albuxaari soloon na ko mbokk jéggalu yàlla mi ngi nii suñu borom yàlla nee na nañ ci jëkkante jëkkante leen jëm ci seen àjjanay boroom saari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha alsamawati wal ard uiddat lil muttaqin jëkkante leen ci jéggalu jëkkante leen jëm ci àjjana la gën a gaaw lu leen fa yóbbu la borom boobu subhanahu wa taala nee na mooy ña nga xam ne seen alal dañ cay dépensé bu ñu amee ak bu ñu ñàkkee ña nga xam ne dañuy nëbb seen mer ña nga xam ne nii dañuy rafetal jëm ci ay jaamam waaye heure bu ñu defee bakkaar wala ñu tooñ seen bopp fastaghfaru li zunubihim wa man yaxfiru zunuba illa allah dañuy gaaw tuub dellu ci yàlla kan mooy nangu tuub ku dul yàlla mbokk yàlla ci mbaaxam ak yërmandeem boole nañoo ñaari malaaka malaaka bi féete ndeyjoor loo def ci lu baax mu gaaw ko bind malaaka bi féete càmmooñ loo def ci lu bon bala koo bind chef bi mooy ki féete ndeyjoor danaan ko xaaral ba xam dina tuubam déet ñëw na ci riwaaye lu jege juróom benn waxtu dañ la ko xaar ndax da nga tuubam déet soo tuubul ñu doog ko bind am naa boo tuubee kenn du la ko bindal kenn du la ko bindal muy bakkaar bu lay bu lay lor lii mbokk mooy la sunu borom yàlla wax ni ñii mel nii day ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim seen pay mooy njéggal bi boowoo ci seen boroom gannaaw njéggal lu ci tege wa jannatun tajri min tahtiha al anhar gannaaw ba nekk ajjana yoo xam ne dex yaa ngay daw ca suuf xaalidina fiiha wa ni'ma ajrul amilin ñu sax ajjana ba faw ak a baax payu ña nga xam ne dañ doon liggéey ay mbokk bakkaar yi ngi noonu nañ ko daw suñu kem tolal kattan waaye nag bakkaar yi ngi noonu kenn mënu caa mucc waaye nag gannaaw bu la yàlla nattoo it góor góor lu leen di tuub fexe leen ba seen tuub mujj seen bakkaar fexe leen ba seen tuub mujj seen càggante looloo tax sallallahu alayhi wa sallam xatta ci lal ba muy faatoo avant ya ruuxam gi di génn bokk na te lu mu wax lu mu mujj a wax rabbi ixfir lii wa tub alayya wal xiqni bil malai l ala ay yàlla yàlla nag ma jéggal nangul ma saak tuub ca wal xiqni bi rafiq l ala boole ma ca àndandoo yi gën a kawe ya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lii mbokk mooy la nga xamee ne nii moom la ñu indi woon tey di ñaan borom bi jàll wa ala yal na ko saxal ci suñuy xol yal nañu yàlla boole ci ñi koy jéggulu fu ñu mën a toll yal na yàlla nangul ñu suñuy tuub àdduna ak alaxira yal nañu yàlla jéggal yàlla yërëm ñu njéggal ak yërëm bu ñuy muccal ci mbugalu bàmmeel njéggal ak yërëm bu ñuy muccal ci mbugalu àdduna ak alaxira waaye njéggal ak yërmaande bu ñuy tabbal ci àddina yi gën a kawe allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi alaxirati xasana wa qina azab annar rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxasirin subhana ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين